waaw dinañu ci tontu parce que nag euh, ci màggal lañu jëm te kuy wax màggal wax ak talibé te talibé nag mooy kuy def luy defar defe naa ne li nga xamante ne moo am mbàkkee euh, amul ko am jotu di dox di dige loo xamante ne kenn xamul lu mu doon dama bëgg nit ñi comprendre ne tey ci collectivité territoriale bu ne la wàll jëm ci wàllu tàggat yaram état central daf ko délégué compétence transférée kon ki njëkk a nekk responsable defar mbir moomu mooy kiy jiite collectivité teritorial waaye kooku bu demee ñaani ndimbal ci niveau central ba ñu ñëw fa damay fàttali ne bi ma demee Mbàkke dama leen ne dama ñëw xool si lifine bu ñu ko xoolee lañ xam ne war nañ faa mën a def stade ñu décider ne dañu leen di defaral stade ba ñu ko décider nag dañu nekk ci réew moo xamante ne kenn du jóg rek di tabax dafa am yoon wu muy jaar bi ñu lancé li nga xamante mooy appel d'offre bi am na ku ko gagné ñu def ñaari recours amoon na recours contentieux ak recours gracieux boo xam ne moo ci amoon waaye loolu yëpp DCMP ARMP ji nga xamante ñoo koy saytu yëpp xool nañ ko ba mu jeex ba jox nañ ko ku ko li ci des mooy mu jot avance de démarrage am bu ko jotee ci fan yooyu dina mën a ñëw installé pour mën a tabax li nga xamante mooy stade Mbacké waaw xam nga nag comme euh, euh, yëf yi moom boo nee suba la.